bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yal na nu yàlla boole jëkkal tom bu ñuy fàttalante balu ñu cee agsi dafa am mbas mu wàcc ci àdduna bi siiw na lool ci fan yi ñu nekk ñu koy wax corona virus muy def ay jeexit di mbas moo xam ne mii li ci jullit am ci gànnaay bi muy jëflanteeg moom mooy ñaan yàlla na ko fi yàlla yamale ñi nga xam ne dal na leen it te du wopp ji leen fi war a jële yàlla nañ wér fu mu àgg gutoo nit yàlla bu mu fa àgg tom bi ñu fàttalante day tënku ci leeralal lenn ci lu bari ci ñi nga xam ne pas-pasu gëm-gëm mi ngi ci ñoom ñu xam ne ponk yi ñuy gëme yàlla yi ñuy gëm ñu ne kii gëm na yàlla daf cay bokk gëm ne yàlla amoon na ay ndaw yu mësoon a yónni ci kaw suuf ñuy ay nit ni nun di wax di dem ak a dikk di ay doomu aadama gëm leen ñañ ca xam ak ñañ ca xamul ñépp ci pas-pasub jullit la bokk waaye suñ demee tuuti lu nekk di xew ba ñuy joxañ nit naan ab yonent la léegi ah xam naa ne bu ñu sukkandikoo ci lii benn waykat waxoon ne kuy jaay xam-xam bu waxee silaam ba noppi sila bu ñëpp ne teg bu ñu ne la tontu ko nee ko xam naa ne dangaa am loo xam rek la ci des bàyyil keneen mu xam ko wa qul liman yaddaci cilman wa macrifatan carafta cheyan wa gaabat canka ashyaau lii alaji fal li lu mbakke tontu woon genn góor bu dëkkoon fii fuu rek siiw lool doonoon kaang fóore mokkal loo ñu bari alquran daa masoon a am aw tàngoor wu ko dikkal mu ñëw ci suñ fallu ne ko am na nu nu say moroom def noonu boo ko defoon yaay gën ñëpp mu ne ko nu samay moroom def mu ne ko jébbalu ci man mu ne ko weddiwuma la de waaye dangaa fekk nag ma jébbalu ba nopp kon jullit dafa war a dëgër ci pas-pasam ba bu mu def rek lu jóg rek yóbbaale ko bokk yi yàlla moo wax ci alxuraan ne xeet wu nekk daan na yónni ci ñoom ndaw loo xam ne ab yónent la tudd ñu di ko def ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëw mu ne ko yow moom yónniwuma la ci aw xeet kese kese muy der bi wala làmmiñ bi waaye li fekk addunaa ngi am sa bataaxal bi fexeel ba mu àgg fépp daj ñépp ku ci jot nangu ci saw xeet la bokk kon nag laaj bi mooy kan mooy ab yónent ak ku ko doonut la ëpp ci ay yónent yàllaa leen xam waaye bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee ci la leeral joxe benn benn ay tur yoo xam ne yi yàlla leen tudd ci alquran yi yonent bi tudd leen koo ci xam ne déggoo aw turam ci alquran ab jullit moom sañu ko caa boole du ko ci sañ a boole day jàpp ci la alquran wax mooy atti jullit ñi ci làmmiñ bi nga xam ne ci la alquran moomu doon wàcc nag dafa def ab yonent ñaari xaaj ñun nag wenn tur woowu lañ ci xamoon ñaari xaaj yi mu ko def mooy koo xam ne bala ñu koy def ñaari xaaj yi ñu xam ne ab yonent mooy kan mooy ki nga xam ne bu ko yàlla di waxloo day yónni malaaka mu sako li mu war a wax ak nit loolu la ciy firnde mooy ku dem ci alxuraan da nga ci fekk yasalunaka yu bari ci alxuraan am na ñuy ñëw ci fan yi wala ci kanam tuuti di la laaj yow wa aleyka salaatu wasalaam waaye suñ la laajee tontul nangam nga xam ne la ñuy laaj ci tontu laa ngi taxaw di leen nekk suy àggal muy dal yasaluunaka an il ahillati qul hiya mawaqitu linnaasi walxaj yasaluunaka an ilchahri alxaraami qitaalin fiih qul qitaalun fiihi kabirun wa saddun an sabilillah yasaluunaka an ilxamri walmaysiri qul fiihima ithmun kabir wa manaaficu linnaas wa ithmuhuma akbaru min nafcihima wa yasaluunaka maa saa yunfiquun qul ilcafw wa yasaluunaka an ilmaxiidi qul huwa adan faatazilu nnisaa fi lmaxiidi wala taqrabuhunna xatta yadhurn yasaluunaka an ilsaa ayaana mursaha qul innama cilmuha cinda rabbi laa yujalliha liwaqtiha illa huwa thaqulat fi lsamawati wal ard laa taatikum illa baxta yasaluunaka ka annaka xafiyun canha qul innama cilmuha cinda allah ba yasaluunaka yi bari lool ci alquran waaye lu ci nekk day ànd ak malaaka la yàlla yabal ne ko ñooñu di ñëw buñ ñëwee bu la buñ la laajee nangam neel nangam benn muy atte bu mu leen di digal wala bu mu leen di tere wala lu mu leen di leeral luñ bëggoon a xam ab atteem moo tax kon day bokk ci yi ñuy gëmee ne kii ab yonent la malaaka di ko ñëwal malaaka waxuma leneen nag waxuma keneen it bu ko defee ñaari xaaj yi mu am mooy am na ku ñuy wooye ab nabiu ak nabiyu ñoom ñaar li leen wuutale lu tuuti la ni ñu leen di waxee la wuute waaye benn bi mooy ki nga xam ne yàlla daa yebal ci moom malaaka xamal ko waaye ci moom lay yam ak koo xam ne ki ci des daf koo jox ndigal mu wax lim xam su boobaa nag kooku li ñu tuddee rasul mu amaat tuuti lu leen wuutale rasul rasulullah foo ko déggee bu ko yàlla di yónni ñooñu sax bëreewuñ noona waaye su leen yàlla di yónni day fekk nit ña dem ba mbir ma dem dayo liñ daan léebu naan wal ma jot na gasiga léegi maanaam sàq yañ defoon taw naa taw a taw ba tóoj gañ ko tóojoon ndox maa ngi koy bëgga laal jóg leen jóg jot bala suñ dund baa yàqu foofu la jamono daan ak yàlla yónni ab yónent boo xam ne day ëndaale ab téere di atte nit ñi atte bu leer ku ku nangu mucc ku nangu wut musiba mën na ko dal amoon na jamono yónent bi sayyidna Nuuhin alayhi salaam ba mu naan yàlla gaa yaa ngi nii di ma reetaan guddeeg bëccëg lu ma wax ñu xëpp ci suuf ba noppi teewul taxuleen a bàyyi lañ doon def yàlla da ko digal mu yett gaal rek xista tawil la bu ne ci alquran waaye ba bis ba ñëwee suñu boroom ñëw ak kàttanam daf na yéeg leen ñii mu neexal leen ñu soog a yéeg ñii mu wan leen gannaaw ñu soog a yéeg ñii mu wax rek ñu dégg ñetti xeet nit ñooñu moo am am na ñoo xam ne bala nga leen sant bu ñu xamee li nga bëgg rek ñu def ko am na ñoo xam ne da nga leen koy wax ñu soog ko def bu leen waxu duñ def dara am na ñoo xam ne da nga cay sonn ñu soog a nangu kero kéemaan feeñ na wala kawtéef ndax nit tàggoo na ak doomam jum jur ci biiram te pas-pasa leen wuutale wa naada nuuhun ibnahu wa kaana fi maasilin ya bunayya irkab maana wala takun maa alkafirin doom te ngay yéeg mu ne ko déedéet wóoluwuma sa gaal di wax la gaayee wax rek moo tax li wax di wax li gaa yi wax wóorul kenn ku nekk lu muy wax na ko leer doomam jooju ne ko sa aawi ila jabalin yaasimuni min al ma wax nag moom ba tey yi mu të mu ne maa ngi dem ci doj wële fee moom xam naa du ma sa taw bi du ma sa taw ba àgg fa ndax kawe bàyyam ne ko laa aasima al yawma min amrillah illa man rahim tey tey de ko yéegu ci gaal gi du mucc néew ko doo mucc de ndax yërëm ko waaye dana ku yéegu ci gaal ga du mucc kooka du mucc bëgg bëgg ko yeey fa mu koy wax rek wa xaala baynahuma al mawju fa kaana min al muxraqin fa mu koy wax rek la wenn duus jóg rek dox seen diggante gis seen teetuñ mu lab ba mu ko séenee muy bëgg a lab dane ko rabbi inna bani min ahli kee di bëgg a lab de sama doomam mu ne ko déedéet innahu laysa min ahli bokku leen pas-pas bokku leen fi ngeen jëm kon kooku mooy rasul koo xam ne aw nit dañ fee nekk ne ca la leen neex waxkat yi wax wax ñu të mu yónni koo xam ne ay lay yu leer la ko jox def ci moom lu kenn munut loolu nag ñëpp xam nañ ne jamono yi léegi ji àggagut foofu nag ba ab yonent di ñëwaat ak guñ fa moom waaye jamono Seydina Ibrahima it alayhi salaam moom doonte aw nit ñu toll nañ alkoo woon ci jamono Seydina Noohin xewu ca it téewul ba wal ma jotee gasi ga jug na taxaw tàmbalee ko ci baayam jaar nañ ci jaaraat ci baay nooy yette dara di ko jaamu bu ku ma saan jox mu koy jaay sax danaan kuy kuy jënd loo xam ne amul njariñ kooku ku ne xam ne bëggut a jaral bàyyee ko tënk rek kuy jënd loo xam ne amul benn njariñ yàlla da lañ koy wax waaye mënul la dara mënul laa jariñ mënul laa lool am na noonu suñu borom bu ci alko buur boo xam ne bii da doon buur di bummi takk ko takk ko bëgg ko sànni ci sawara yàlla musal ko fu yàlla jaar ak moom rab wu tuuti ba mu yab ba mu yabaloon sax am na ñoo xam ne faale wuñ ko fi mu ne nii dañ koy nelawaale muy yoo ku gëmmentu dëgg dëgg faale wut yoo waaye aw yoo moo waye way ba dugg ci nopp bi fekk te du yoowu kese kese ndaw la ndaw lu koy wan kàttan suñu borom la ne ci nopp bi sonal ko lool mënta wax mënta lekk mënta naan mënta ta noos mu woote nee nañ ko wutal bopp boo xam ne wurus lay doon boo xam ne yow du ca am wàll gaa yi liggéey ko ba mel na bëgg niroog moom loolu nga xam ne bu ñu ko tegee teg ko doo ko xàmmee mu ne dagg leen bii def ci boobu xamu ne benn rek la ci mën a am ndax doonu ci dara fa ida sawaytuhu xalaqa fa sawa sabbih isma rabbika al-a'la allazi xalaqa fa sawa lu ci ne nam mel moo ko na bëgge moom mu ne neexatu ko waaye jamonoy Seydina Muusa it amoon na amoon na jamonoy Seydina Isa ba ci jamonoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk am na fu mu jaar te la ko andi woon jamono na toll woon moo tax ci tënk koo xam ne yàlla daf koy wax ay sekkare di ko atteloo te néewul yàlla nee na lu may day atte nii te ku ko def gis gis njariñam kooku la ñuy tuddee am nabi nabi bu fekkee nag day taxaw ci pénc ma ni yonent bi defoon la ko yàlla waxoon fasda bi ma tu'mar wa a'rid anil mushrikin inna kafaynaka al mustahzi'in su boobaa kooku moo tudd rasul ñu ne rasul boo gis am doon naa leen ab nabi waaye nabi nag mën naa doon nabi rek ba tey des ca ñu ne it annabi kese-kese du sos lu yees waaye day wéyal liggéeyub rasul ba mu fa ba ku jiitu woon jamono te njàngale moom lay wéy di jàngale waaye rasul nag lu bees peq lay indi loo xam ne dañu naan musisu koo dégg te fekk loolu mooy dëgg suñu demee ci alxuraan danañ ci fekk ab lim am na ñu ne mat na ñaar fukk ak juróom yoo xam ne yàlla tudd na seeni tur ci alxuraan mu ne fàng tur yooyu mu tudd ci alxuraan nag képp koo ci xam ne aw turam nekku ca buñ ko wooye buñ ko wooye ab nabi buñ ko wooye rasul nañ seet tur wuñ koy wooye mën naa am nag ñu tudde ko tur woowa waaye na fekk muy tur woo xam ne kenn mësu ko tudd ku lu ña ko tuddoon boobee ci alxuraan ñu natt ko ba xam koy wax ak moom malaaka la wala déet am na ci ñooñ it yàlla wax nañu lu bari ci seen biir ak ñoo xam ne waxuñu ca dara waaye ñépp lañuy maas a gëm ku dem ci suratul an'am da nga ca fekk wa tilka xujjatuna aataynaaha ibrahima ala qawmihi narfau darajaati man nasha ba agsi ci inna rabbaka xakimun alim wa wahabna lahu isxaaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuwan hadayna min qabl ba agsi ci siraatil mustaqim ayaat yu takku la ëpp na benn aaya daal tur yooya am na ci yoo xam ne yàlla tuddaat na leen feneen wax tuuti ci ñoom tudd na idris wa idris wal yasaa wa dal kifl wa ismaila wal yasaa wa dal kifl bu ñu demee ci suratu maryam danañ ci fekk wadkur fi kitaabi idrisa innahu kaana siddiqan nabiya ñenn jàng nabiyan bu ñu demee danañ ci fekk huud am na ci suratu ashuara kadabat aadun almursalina id qaala lahum axuhum huudun ala tattaquun inni lakum rasulun amin ñaar ñi nag bokkuñu ci duñ ay rasul ay anbiya lañ waaye danañ ca fekk kadabat thamuudu almursalina id qaala lahum axuhum saalixun ala tattaquun inni lakum rasulun amin waaye danañ ci fekk kadaba asxaabu laykati almursalina id qaala lahum shuaybun ala tattaquun inni lakum rasulun amin loolu ñoom ñëpp mën nañoo bokk nekkandoo ci surat ashuara moo tàmbale ci taasiin miim tilka ayatu alkitaabi almubini laallaka baaxiwun nafsaka allaa yakunu muminin waaye ku dem ci suratu daawud mag ñi daan ko wax njombaan dana ca fekk dul kifl wadkuru ismaila wal yasaa wa dul kifl wa kullu min al axyaar waaye duñu agsee ci sayidna muhammad ci ñim tudd seeni tur fa la tëje yonenti ga moo xam muy nabi wala ab mursal nabi wala rasul ba mu joxee sayidna muhammad ndigal ci nangam ak nangam ñu bëgg koo won ne kii yonent bi mooy bàyyu diw moo tax du ko man ñi naan ginnaaw mooy bàyyam lu tax mu di ko man ñi naan lu tax du ko man ginnaaw yi digalul yàlla la te yàlla moo ne woon wa maa kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasulu amran an takuna lahum alxijratu min amri min amrihim ci la yàlla leerale nag muhammad mi lu mu doon ci ñun ak ñi ñëw ëllëg maa kaana muhammadun aba ahadin min rijalikum bu leen jéem a séqanteeg moom ak bokk maay baayam maay bàjjanam maay nijaayam maay maay maay nangam ci moom bu kenn ci ñooñu walakin rasulallah wa xaatama annabiyin xaatam annabiyin wa kana allahu bi kulli shay'in alim loolu bu mu leen jaaxal yàlla moo xam la weesu mooy xam li ci kanam xaatam nag fala bët yam mooy gannaaw yonent bi ku mën a ñëwaat du waaja ndax yàlla moo nekkoon ci alxuraan al yawma akmaltu lakum diinakum bis ni ki tey diine moom mat na sëkk sa diine ji nga indi moo fi mujj wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina kon ak yonent mu ngi noonu ñaari xaajam yi ñu naan nabi la wala rasul la wala nabi i nabi i wala nabi yi wala rasul nit lay doon ci bokk ci ñun di dem ak a dikk di wax ñuy dégg waaye li muy wax du ko waxe bakkanam du ko teg ci da ko neex képp wala fii loolu la laaj wa najmi ida hawa ma dalla saaxibukum wa ma gawa wa ma yantiqu an il hawa in huwa illa waxyun yuuxa bi ma jëkkoon jàng mooy nit moom yàlla du wax ak moom lu dul day yónnee ci moom malaaka malaaka li muy indi ci nit mooy wax yi bu dul malaaka mi koy jël si di ko rey kooku it wax yi la ndax daa am ndigal ci rey ko du dellu mukk te yóbbuwu ko wala mu làqoo ko dara wala mu yónni nit nit ki ñëw ne ko yàlla nee na wa ma kaana li basharin an yukallimahu llahu illa waxyan aw min warai xijabin aw yursila rasulan fa yuuxi bi idnihi ma yasha moo tax mun yonent bi loolu moo tax nag aw xaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala al iman loolu moo tax mu yónni ci yow malaaka muy ñëw naan la yàlla nee na te lii ngay wax ñi la xam ñëpp xam nañ ne mosoo ko woon a xam ndax mosoon na koo xam day fekk mu doon ko mën a jàng bind ku mën a jàng bind moom lu mu wax mën na mën na si naa xay xëy na xel mën naa jort ne moom mos na koo liir fenn waaye su fekkee koo xam ne mënut a liir tey wax loo xam ne benn téere mënu koo dindi kooku waxewut bakkanaam walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina kon ku bëgg a noppaloo da nga koy nangul rek ne ci yonent bi la ak yonent di yam mu jeex tàkk ne ko yow mii kat wa innaka la tahdi ila siraatal mustaqim li nga fi nekkee du lenn lu dul teg nit ñi ci siraat mustaqim siraatillahi allazi lahu ma fi samawati wa ma fi l ard kon boog bu jamono doxee ba wax ubbi ko lool bari lool ab nit nit ñëw ne ak nit ñëw ne yàllaa ko yónni nañ ko laaj luy mission yan bi mu yaanu war koo yenneku yenneku nit ñi lumu ndax ci lislaam la nekk ba tey su fekkee lislaam la nekk ba tey moom mënu mënut a tudd ab yonentaat ci biir lislaam mënut a tudd ab ab nabi su fekkee leneen lay wax nag leneen lay wax waaye du jullit moom waru faa toog sax di ko déglu muy wax moom su fekkee ci biir lislaam la nekk bu ko soobee mu ne nit ku baax la ah dañ koy ilham waaye yonent nag moom tawu moom déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko yonent yi ñaata laaj lim booba it mënut a dolli ko waat ndax yonent bi séentu waatuñ muy ñëwaat waxin la laaj nañ ko mu ne kamil mursalun mu ne ñetti téeméer yu teg ak fukk ak dara mooy mursaloon ñu ne ko ñu laajaat ko ko ci beneen barab mu ne téeméeri ju nekk ñaar fukk ak ñeent lañ waroom xam-xam yi nga xam ne nag ñu maandu lañ te dégg lool di gëstu yonent bi leeral na ca ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñi ne fukk ak ñeent ñi ne fukk ak juróom ci ñoo xam ne ay rasuul lañ waaye tànnaat nañ ca biir ñooña ñetti téeméer ak fukk ak ñett yooyu wala ñeent wala juróom juróom ñoo xam ne ñoom ñoom lañ tudde ulul azm mooy ñooñu ma tudd seeni tur léegi mooy Nuux Ibrahim Muusa Isa ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye lim bi ma doon lim ci alquran am na ci yoo xam ne yonent bi moo ne diw ak diw ca lañ te nekkul ci alquran te lu mu wax dëgg la kon jullit yi war nañoo xoolaat seeni pas-pas lu ñuy gëm ak lu ñu dul gëm li ñuy gëm moom leer na leer na nañ saa bu sikki sàkk amee ku sikki sàkk rek taxawal ku sikki sàkk rek taxawal dellu fa nga nekkoon foofa wér am na ñoo xam ne lu ñuy bëgg a def dalut seen xel dañ koy bàyyi te saa suñ ko defee am ca ndam mooy xel mën a déet da leen di yey moo tax suñ bi bind na ci ab téeréem ne ñi ñi alxuraan tudd ak ñi ñu tudd ñépp te yàlla xam seen ak lim gëm leen yam ca ci pas-pasu jullit lay bokk mu door a dëgër imaanukum bir rusuli tasdiqun bihim thumma bima jaa'u bihi bihim min rabbihim alquran ne am na si ñu tudd ci alquran wax dara ci seeni mbir ak ñoo xam ne tudd ci al tudd leen ci alquran waxul ci seeni mbir dara ku dem ci surat Ghafir wala dana ca fekk wala qad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka soo ko jàngee ba àgg ci ida jaa amrullahi qudiya bilxaqi wa xasira wa hunalika almubtilun wa ma kaana li rasulin an yatiya bi ayatin illa bi idnillah fa ida jaa amrullahi qudiya bilxaq wa xasira hunalika almubtiluun waaye suratu nisa tam wa rusulan qad qasasnaahum alayka min qabl ma nga ca am na ay yonent yoo xam ne nettali nañ la cee wa alayka salaatu wa salaam dara wa rusulan lam naqsusum alayka ak ñoo xam ne yàlla waxulu ci dara te xam lépp wa kal waaye nag ne ko wa kallama allahu Moussa taklima boo déggee ñu ne yàlla Moussa mas naa wax ak yàlla te boobu la jaaxal amoon na kon boobu ab jullit pas-pasam na ko jàppee jaasi jim yore bu dee ab kuy jëfandikoo jaasi la ci liggéeyam te du sàcc du agressé waaye bu dee kuy yor aw sémmiñ la it te jëfandikoo ko lu dul xaral nit matt nit ñi ñu di ko ca jox mu koy dunde war na koy dàggi saa su nekk muy gën di ñaw te muy bañ a def lu mu dégg rek wuy ji ko lu mu romb ci vidéo itam xool ko dana mujj dootu xam lu muy jàpp te moo ne li ñuy jàpp lu leer nañ la yàlla na yàlla dafa dëgg topp te musul seytaane ak i pakkam te jàngoro jooju moo fat tàmbali woon léegi ku dem ne wéet ak boppam ñaan suñu boroom coronavirus ñim jot a dal te du seen woppi ndee yàlla na yàlla saafara ñi nga xam ne àggagut ci ñoom yàlla bu mu fa àgg ñi nga xam ne it ci la yàlla jël seen bakkan te ñu ay jullit it yàlla na leen yàlla yaram yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin